Bienvenue sur Salam Vision. Sëriñ Babacar bu leen ko faat ci di ñaanal xalifa mbay mi fi nekkoon yore xilaafa ki bootoom sallallahu alayhi wa sallam ci bis bu bi di alxames tabaarakallaahu ñu war a teel guddi àjjuma ñu leen di nuyu fii ci télé Dak Médina fa tabaarakallaahu TV macha allah ci kër Adja Kya Aydara bu bu Cheikh Sidi Aboubacar si radiyallaahu taala tey nag mbir bi ala dawle lool ay kilifa yu mag jóge ba xadara ba tabaarakallaahu ñëw teew ci bis bi ñu ci ràññee Serigne Abdoul Aziz Boukoye sëñ Abdou Al Amin yàlla fi yàgg tey ñëpp rafetlu taxawaayam muy koo xam ne macha allah boo déggee muy wax fa tabaarakallaa doo tiit ndax léeg-léeg nga dégg nit di wax mais da tiit ndax ci biir wax ji rek dina wax lu blessé nit te góor su ne war nga moytu di wax ci mbooloo di blessé ay moom li ñu sedd ci waxam mooy ku woddu kàddoom kàddu gu ñu wodd day defar pénc mais kàddu gu ñu muur yi day day day tas pénc ndax boo waxee rek fa tabaarakallaahu yàq lu bëri yàlla yàlla dolli ko sutura mu ñëw ci soppeem loo xam ni wallaahi mënul ne lu metti la tey mu jigéen teewoon ci xadara mu ñëw fi ndax xam nañu ni yu mel ni dañ ko war di taxaw foofu ak ci Thiès ak ci région bi waaye mu bàyyi lépp ngir cofeel ak kóllëre vraiment ayaa ki yaa loo jàppoon suñu Abdou Doucouré man waxuma man de mais loo jàppoon si Abdou Doucouré yokk ndax defal nga la loo xam ne tey lu jafe la fa tabaarakallaahu te yombul ci temps ci jamono bi ñu kon tey moom la ñu moom la jox kàddu insha allah ginnaaw bi ñu joxe Adja Kya mu nuyu ko ziyaara ko tatagal ko fa tabaarakallaahu mu waxtaan ak yéen tuuti sëñ Babacar Si ndax xam nañ ni amul jot macha allah looloo tax sax waroon nañ ci jàngat beneen kaamil mais dama mës a dégg sama sëriñ sëñ Issa Touré di wax ne benn kaamil bu ko yàlla nangoo ëpp na néewi te di ñaanal tey Serigne Babacar si ci ay kaamil. kenn xamul lu mu toll. kon kër gu ñu dugg rek mën nañ fa jàng benn kaamil. fa tabaarakalla bu ñu benn kaamil yeneen kër jàng ay kaamil yeneen kër jàng kaamil yeneen ko dajalee dina mat ay millions yi kaamil ci Serigne Babacar si. loolu nag martaba bu ko yàlla defal nag. fa tabaarakallaahu fi barke Serigne Babacar si jógee. kon Adja Kiya yow la ñuy fas yéene jox. yow taalibu Serigne Babacar si. yow leen fatigaabu Serigne Babacar si kër si ku dugg ci kër gi gis Serigne Babacar ku dugg ci saal bi gis Serigne Babacar waaye ku yëg ci kaw escalier yi gis Serigne Babacar waaye ah yow loo gis si Serigne Babacar ah yow daal damay jox alaaji taala mu yow ku la bëgg taal. na wax tuuti sëñ Babacar si gàndaar bi boo waxee toj réew mi ñaanal wax lu amul xamul looloo xalifa mbay mi fi nekkoon yore xilaafa ki bootoom jabooti moom da ci bootoom Serigne Babacar soo ko musaana présenté mam boy sa àndandoo du ko fàtte su la gisee di ko laajte gi gaynde moo ay may sëriñ Babacar faju aaju gaw na fa mam boy ti su dàqu gaanaf te sëriñ Babacar lakko gaaya daan dikke mbay fii ci biir ci waawan moo di bàyyi sëriñ Seex Tijaan Si Al Maktuum góor gi juróom gaynde ja bàyyi sëriñ Mansour borom daara jég dëre yëg dara jég dërëm li ma si bég borom ala daw mi bàyyi sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum bàyyi sëriñ Abdoul Aziz Al Amin Al Amin mi ngi jooy tono péegul sëriñ Babacar mooy le prophète 5 mars xanaa yëgoon ne ku bëgg Serigne Babacar mu neex la ak naqari la sa lépp day mars ndax Serigne Babacar la marabout plus élégant plus intelligent plus pédagogue de tous les marabouts au Sénégal Serigne Babacar ku la xool dootul xooli keneen ku la daj dootul lambi leneen ku la muy dooma nekk feneen yaa yoru diine ji góor gi ñu toll gars yi góor gi moo waxuma la dara waaye turam ci boppam nag wallahi boo koy tudd sax da ngay bëri xaalis waxuma xaalis de turu Serigne Babacar Sy rek boo koy tudd da ngay bëri xaalis bu ma nee xaalis nag mooy ay milliards boo nee xaalis ay mille francs yi junni kon tabaarakallaahu kii yaa dama bëgg nga wax ma sa secret ci Serigne Babacar Sy ndax koo dégg rek ngi naan kii yaa bu Serigne Babacar Sy mhm. kii yaa tey nag dama bëgg balaa sëñ Abdou ju jël nga wax ma yow yow yow yow Serigne Babacar Sy yow yow nu mu demee noonu. man kontaan naa te te am na li ma wax dama kontaan te trop trop. seen Babacar Sy ma def bëri na. jëm su ma ko waxee romb ay des tur ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan yëpp ñu def lii. yàlla jël ko ñu jël ko jox ko yàlla yàlla jël ko jox yeneen jox yeneen ñu jël ko sallallahu alayhi wa sallam jox ko waa kër seen Babacar Sy ak kër gi nekk yëpp ak uh, mboolem jurit yëpp génne àdduna jullit yëpp ñoo ashhadu laa ilaaha illallaah ashhadu anna yëpp wàcc kàmm yëpp yu nga gis nit am na lu mu la defar mhm. suruk bi ba si limbatu bi ba si bi moo tax ma fonk ko bëgg ko loolu mais ah, dégg naa sax ñi nga taal ñëpp mhm. ba tey macha allah ñu am ay tur ci réew mi dégg naa koo toogal sax boo ko waxul barke ba Babacar sax xelam du dal léegi nag dama bëgg sa cër ci Serigne Babacar ci barke 25 mars bi nga xam ni lu ne xew na ci feebar bii di corona lëmbe àddina sa cër ci Serigne Babacar si laa bëgg nga woo Serigne Babacar si corona jóge fi corona na fi jóge ci barke Serigne Babacar si. incha allah ngay ñaan si allah ñaan ko si Serigne Babacar si corona bi di dugg incha allah. dinaa ko def tam parce que nit soxna ki yaa jërëjëf xol bi fees na xol bi tooy na. mais dafa kontaan xam nga xol récipient la. buy fees di tuuru. fa tabaarakallah te moom dafa bëgg Serigne Babacar Sy ba ku fi ñëw rek xam ni dafa bëgg Serigne Babacar Sy kon fa tabaarakallah ma jox Serigne Abdoul. Aziz Dukuré ak Tijaani bu Cheikh Sidi Aboubacar Si radiyallahu taala mu wax leen nag ku Sëriñ Babacar Si gaa yi ko déglu di nga dégg de bismillah may bëgg way sang bi jaar di way abadan soo xamal ki may bëgg way mooy amin mu ti waawan huwa cheikhun taqiyun huwa alimun wariun oh. huwa xibaran na jiital mooy amiin mu tiwaawan sëriñ Abdu yow lan doon tiitaroo fu nu jëm di la tiwaawan man ajjuma ci fajar lan ma tàgg Abdul Aziz gëmuma ko ma sol sama tiwaawan man gëmuma ko ñu gën sëriñ Abdou Kër sëriñ Babacar war kaa jullee raw du sëriñ si Mansour moo ko jullee gëmuma ko waaye sëriñ Abdou xam nga kañ la yëg ni ñàkk nan ba première bourde bi dudu génn naan jaara ndeysaan man de maa ngi lay jooy li nga yoroon de su ko jëlaat fii ba Tiwaawan jale naa ko mu yóbbaale kuy tumbay duudu kenn mbay mi doonoon way katam ci biir Tiwaawan oh, jërëjëf <laughs> jërëjëf yal na yàlla fay yiw. barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa xam naa rek wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah. ñaan yàlla. li ko sëñ Babacar ñaanee. daal ma ko yàlla defee noonu. te mooy. yal nañu yàlla taas ci barke Cheikh Seydi Ababacar Sy. ñu sang yi fi nekk yëpp waaye di feddali suñu kóllëre ak ñoom di feddali suñu cofeel ak ñoom di wax ni rek wax dëgg yàlla activité yëpp dañ koy yëg ñu nit waaye dañuy xam ni rek euh, corps yi nekk Sénégal yëpp benn couleur la ñuy défendre mooy vert jaune rouge mhm. te loolu moom mooy moom la jullit yëpp war a demee rawatina nag képp bokk ci xadara Cheikh Seydi Ahmed tey nag wax dëgg yàlla ñuy ndokkeel suñu jigéen bopp bi soxna Kiya bu bu Serigne Babacar Sy damay wax rek ni dàkkantal boobu rek. munu ko fay sëñ Babacar. Mm. mën mm. maanaam dàkkantalu ñu tudd sa tur tudd tur tur sëñ mm. rek nit munu ko ko fay parce ku nekk la ko yàlla bi ko yàlla defaloon moo rogalaat ba ci ay soppe. dafa jigéen moom mos a wax ni ma. dafa dafa dafa daf ko gént wax a wax ba yeggal ma ne ko ah, sëñ Babacar de kenn du ko sopp ci hasard mooy tànn ay soppeer moom moo ko waxoon Serigne Cheikh mm-hmm. boo ko waxoon ne xanaa yëgoon mm-hmm. gox boo dem kër boo dem famille boo dem askan woo dem mm-hmm. ña fa gën yàlla jox na ma leen man Babacar si mu ne ko boo boo gisee kuréel sax ñuy dox boo leen xoolee samay soppi mën nga leen a ràññee ci biir dëgg la ndax am na am na lu leen yàlla di jagleel lu muy jëlee ci man di muy dem ci ñoom mu nekkoon nitu yàlla boo xam ni damay wax toujours fi mu wuutee ak nitu yàlla yi mooy nitu yàlla yi seen wilaaya leen conditionné mm-hmm. mais sëñ Babacar moo yilif wilaaya maanaam nitu yàlla yi seen wilaaya moo leen yilif mais sëñ Babacar moom moo yilifoon wilaaya mm-hmm. moo tax léeg-léeg ngay dégg nitu yàlla wax dara du tombe na mu ko waxee mm-hmm. fekk ba mu koy wax wilaaya ga nekku fa mais sëñ Babacar moom dafa yilifoon wilaayam ba lu muy wax da ci coordonné ak wilaayam mag ñi nettali nañ ni daan na toog di wax ba mu yàgg mu ni dënd noppi kenn dootu ko dégg kenn dootu ko dégg kenn dootu ko dégg ba mu yàgg mu ne on oh, on oh, oh, daal di continuer ñu ne bu nee dënd rek parce que mi ngi discuter ak wilaya waaye bu nee on on wilaya di dellu si ne mu continuer mbaa mu jug fatu léeg-léeg nag nit di wax ba wilayaam dem te du ko yëg léeg-léeg it nit di wax wilayaam ne fa te du ko yëg mais Sëñ Babacar Si dafa bokk ci nitu yàlla yi nga xam ni yàlla xam na ni nitu yàlla la nit ñi xam ni nitu yàlla la moom mu xam ni nitu yàlla la mm. te loolu benn grade la ci grade nitu yàlla yi parce que am na koo xam ni ak nitu yàlla moom dong nga xam ak yàlla mais nit ñi xamuñu ko mm. am koo xam ni yàlla ko ko xam mais moom xamu ko mm. nit ñi xamuñu ko am koo xam ni yàlla xam na ko nit ñi xam nañ ko mais moom xamu ko am koo xam ni nit ñi xam nañ ko moom mu xam ko mais yàlla yëgu ko mooy kii woote te dara to kii woote te dara di wu fa. Hmm. mooy li Cheikh Hadj Malick doon wax ni wa kam baatilin yawmal qiyaamati baatil. Maodo nee na bëri koo gis muy woote. Hmm. te la muy woote di ko tuddee baatil bu ëllëgee yawmal qiyaam nga xam ni baatil la. sëñ Babacar nag jagle bi ko yàlla defal moom Cheikh Al Khalifa sëriñ wax na sànq lu am solo lu jar a bàyyi xel. damay wax toujours man ni xam turu sëñ Babacar doy na liggéeyu ndey. doy na ci liggéeyu ndey. Hmm. nga xam turu sëñ Babacar. oo ma nga tudd Babacar rek dem nga xam turu sëñ Babacar si mhm. xam nga Babacar mhm. Babacar mhm. boo ko jëlee ak xalifa Ababacar si boo ko déchiffré ni mu allahu samiu la lay jox mag ñi am na luñ ci liggéey bu ñu soxlaa coordonné ak seen borom direct te du am intermédiaire pour sëñ Babacar woowu la ñuy jël Ababacar ak xalifa Ababacar la ñuy boole liggéey ko lim biñ koy liggéey bu ñuy fëgg yàlla muy ubbi yàllaa ko ko jagleel shaari ba daf ko wax ni ko bi bi Cheikh Hadj Malick faatoo ñi bëggoon a nekk xalifa Maodo bari nanu ndax booba Maodo ay Maodo la fi bàyyi ñoo xam ni Maodo ni moom lañ mm. mu ne waaye booba xilaafa wutiwu leen mm. yow kër si la xilaafa wut si ndax am na koo xam ni mooy bëgg a donn am koo xam ni dañuy bëgg mu donn ñu mu ne nag sëñ Babacar yow xëccoowoo xilaaf hmm. mais xilaafa boo xëccu jëm ci yow Cheikh Omarul yi moo wax ni maa présenté ca xadratul ilahia Babacar si ngir mu wuutu Maodo ñu laaj ko kañ nga ko présenté mu ne booba Maodo ngi dund ndax dundaat na juróom-ñaari at te mënta dogal ci tariqa bi lu Babacar si àndul ndax booba Babacar a yor sirru tariqa bi Maodo yor mbubbu tariqa bi te ñoo ngi dund ñoom ñaar waaye Cheikh Alhaaji Malick mënul booba jamono lu sëñ Babacar dogalul ndax booba sirru xilaafa fekk na mag ñi daje ba teg ko ci loxol sëñ Babacar moo tax mu wax waxam bu rëy boobu moom sëñ Babacar mm-hmm. ni diggante bi ma wuutu Maodo dafa gàtt ñu ne ko lu tax mu ni laataa muy faatu fekkoon na ma doon mu ni moo tax sama liggéey ak moom yàggul bi mu faatoo diir bu gàtt rek laa yëg ni li Maodo bëggoon defal naa ko. Mm-hmm. moo tax waykat bi ni fu baay fu maam as defoon benn baay mbay fukkal na ko. mu ni diir bu gàtt rek ma yëg ni sama liggéey ak Maodo jeex na. mu ni waaye liggéey ba fa desoon. Cheikhouna Tidiane Chérif moomu ko santoon. ndax demoon naa ci moom ba àndatumaak sama sago. Mm-hmm. ndax nangu woon na ma bind na ko moom sëñ Babacar. Mm-hmm. ni bu buñ la dee wut loo dof jàpp ma maay sa dof mu ni loolu looloo tax li ko Cheikh defal moom sëñ Babacar ci wilaayam moom sëñ Cheikh Ahmad Tidiane ci tariqa sëñ Cheikh Ahmad Tidiane defalu ko beneen nitu yàlla ci tariqa bi loolu loolu fawu nit ñi nangu ko hmm. nangul nangul lëg gàtt geenam ak mën a dawam hmm. teewul yow nga nekk lëg teewul yow nga nekk nit mais nangul ku nekk nangul ko cëram lii cëru sëñ Babacar Si hmm. mu ne nag bi pour mu wuut bi mu wuutoo Cheikh Alhaji biir bu gàtt la mu wutu Cheikh mu ni nag liggéeyam ak Cheikhouna Tidiane ci tariqa bi yitte bi mu ci def moom sëñ Babacar ak gëm gi mu gëm Cheikh tax na tamit liggéey ba yàggul mu matal ko mu ni bi mu ko matalee nag la ko yonti yàlla Mouhamad teg la ko ci mbagg ni ko Babacar jaam yi yaa ma ci doy mu ni looloo taxoon mu nekk moom sëñ Babacar di xalifatullahi fil ard moo tax bi muy dund benn xalifa am mooy Cheikh Seydi Aboubacar ndax xilaafa moo ko wutal boppam atathul xilaafatu mm. munqaadatan ilayhi wa tujarriru azyalaha mm. fa lam takku tuqbalu illa lahu walam yakun yuqbalu illa laha law raamaha gayraha fil wara la zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha bu keneen wutoon xilaafa ku dul sëñ Babacar keroog la addunay tukki ndax nee na xilaafa moo dañal boppam ba ci kanamu sëñ Babacar mu ne ko sama digg ginnaaw gii boo ci warul keneen du ci war yow képp yaa ci mën a war looloo tax sëñ Babacar toogoon tiwaawoon wax ni Sénégal ba mu daj bépp allahuma bu fi nit di rëkk bala ñu koy yóbbul suñu borom dina jaar Tiwaawoon ci man Babacar ma vérifier ko ba xam war naa dem bu waree dem ma bàyyi mu dem bu warta dem ma rof ci sama sëñ si daal di mbir yëpp nag fii lay doxee loolu mooy photo bële bu samp benn baaraam bi mooy mbir yëpp nag fii lay doxee moo tax lu waay mën a yóotu ak loo mën a lonk bu la neexee na ci ruq di ko lijjanti waaye boo bëggee mu sotti rek daa ko wékk Babacar si sëñ Cheikh Ahmed si neen mm. dafa sëñ Babacar nee na boo ko bëggee bu la neexee nekkal kiri kor soo ko woowee xana lay fekk ah. mu ne sëñ Babacar moom rek a mel noonu hmm. bay nii wa bay naka hmm. yaa tarixal hmm. amjadi ahadun yasiru ala tariqi tajaddudi fala in naaytu fa kal xayaalu tasuduni waaye wala in ataytu nag fa rëxbati fi mashhadi yow mi sopp sëñ Babacar soo bëggee ziyaara ji Tiwaawan am ngant mënoo dem sëñ Cheikh nee na toogal sa néeg Babacar si fekk la fa ndax kenn ku nekk nit soppeem toog nga ci ruq boo jaaxle yow ket ba nga ko woowee dala faa fekk kookoo ay ci ay soppeem yàlla nañu yàlla tas ci barkeem di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa a yaatu te jamono laajatu moo ñu boole ak sëñ Babacar Si ñoo ngi xamante réew Si yàlla moo ñu boole ak sëñ Babacar Si mm. ndax ñoo ngi xamante réew bu Si lii ñu 15 yi ñu doon jàng Aziz Al Amin moo wax moo ma wax ci mm. ko jàng ci réew mi sëñ loo ko mu dégg ko te loo ko ñaan yàlla def ko looloo tax bi ñu di ma ne xale yi nañ jàdd ci sëñ Babacar ñu ko suñuy aajo aajo yi ñu jëm door a départ ñëw loolu moo ñu xaw a naajal mm. waaye kon gën a teel a ñëw yal na yàlla barkeel yàlla nangu ñaan yëpp bi jaay Seydina Muhammad na yàlla bég bi yal na yàlla kontaan yàlla bu daje bi nekk suñ mujj daje yal nañ fi yàlla gërëmal li sëñ Babacar wax ni soppeem heure booba la koy xam hmm. bu ñu fa yeggee yàlla nañ koo xam ndax hmm. wax na ni hmm. képp ku ma bëgg ba Babacar Sy bala ngaa xam njariñu bëgg ma mm. dañ laa def ci biir bàmmeel ba nga am fa ñetti fan mm. mu ni boo fa amee ñetti fan di nga xam sopp si Babacar Sy ban doole la am mu ni waaye ku noonu ba am ñetti fan ci di nga bëgg ma doon sa sëriñ te du doon si sëriñ bu yàlla dekkalee jaam sëriñ Cheikh nee na mm. yàlla yor na caq wurus boo xam ni da koy décorer benn jaamam nga xalaat yonent yàlla Muhammad mu ni déedéet parce que yonent bi mooy moom moom mooy ràmmu jaam yi yàlla du ko jox caq yonent bee joxe ay caq mooy moo tax bind ko xalaat Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu ni déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ni yàlla liggéey bi kat yaa ma waxoon ni ma nañ ko yeesalaat cheikh a ko yeesal Maodo ni amara nabiyu imamana bi tanazulin li ifadatil axlaaqi bil wirdil jëli looloo tax a ko yeesal nga yaakaar ne Cheikh Alhaaji la mu ni déedéet Cheikh Alhaaji Malick bu dekkee digganteem ak boromam li mu bàq yont yàlla Muhammad jaamu ko sunu borom doy na ko sëkk kado moo tax yàlla di ko ba ëllëg yowmal xiyaam bu yont yàlla Muhammad alhamd Maodo yor parasolam ñu xàmme Moustapha xàmme Cheikh Al Hadji Malick kon ku yàllay jox caq bi mu ni yàlla dina di bàyyi ba jaam ñi ni tirim ku ne tiitaroo sa soppe ba pare mu ni man seen borom am naa jaam bu ma mësta mooy tey moom laay décoré mu ni bu keroogee kenn jug taxaw mooy Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu yàlla ñeel taas bi barke bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñoo ngi jégalu ci kaddu yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mais lii ku mu doyul dara du la doy. nit dem na Tiwaawan te déggu fa lii. di wombat Tiwaawan ba indil ñu ko nii. Ah, ah. sant yàlla ay ah. dara bu ci àll sant yàlla. kon Moulay Abdoul Aziz. Hmm. yàlla yàlla doon la mucc. doon yaatal sa dënn. defal la fasaaxa. defal la euh, tabaarakallaahu Eh, ñaanal la yàlla fa alxaaji Ibou Sakho tolloon yàlla ko wees fa Serigne Alif Sarr tolloon yàlla ko wees yàlla nga dund cent onze ans sans ordonnance yéen tabaarakallahu farata la képp koo xam ni day nooyee xadara bi di nooyee teewaan mu leen di ñaanal tey bëri na nekk Tidiane sa kàddu tax na nekk Tidiane bëri nañu jàpp tarixa bi sa kàddu tax nañu jàpp tarixa bi kon yéen dafa nekk farata ku julli ñaanal leen yàlla kon yàlla yàlla doon sutura yàlla yàlla faj aajo yi yéen a ngi ko àndoon seen télé Dak Médina fii ci kër Adja Kia ci seen émission ëtt kër Mame Maodo ndax li yëpp ba tey ba tey ëtt kër Mame Maodo fa tabaarakallaahu ànd koog suñu technicien xaaral yi macha allah Hadj Malick macha allah tabaarakallaahu sama xarit mm. macha ak sama gars yu baax yi yàlla yàlla fay leen ci barkent yàlla Mouhamed vraiment Adja Kiam ngi gërëm mboolem télévision boo xam ne rek ñëw na tey si kër gi ci bis bi nga xam ne moom lañ jagleel Serigne Babacar Sy yàlla na ngeen fa jóge rek seen télé yi tàkk ni tàkk ba faw ba gën a ba gën a tabaarakallaahu siiw télé yi fi ne yëpp yàlla mën na ko ci barke Serigne Babacar Sy yàlla na ko yàlla def kon gars yi wa ma zalika ala llahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi teg suñu nuyoo rek fii si Abdou Doucouré tegee nuyoom am mbégte bu baax ak kontaan ci jotaay bi nga xam ne jotaay leer la ndax dañuy wax ne tudd nitu yàlla dafay taw leer la boo xam ne yàlla da ko fay wàcce alquran dafa wax ne ñan ñooy nitu yàlla mooy ñi nga xam ne isaaraahum zikrallah mooy xam ne soo leen jàkkaarloo ak ñoom ne rek waxuma nga toog ak ñoom de wala nga wax ak ñoom boo jàkkaarloo seen photo wala seen jëmm rek sa xel daal di dem ci yàlla te Serigne Babacar nag dafa bokk ci nitu yàlla yooyu nga xam ne yàlla dafa dogal soo da jàkk seen jëmm rek bokk ci ñi nga xam da ngay fàttali yàlla sa xel dem ci subhanahu wa taala kon Adja Keye ba Serigne Babacar am na mbégte ki yaaw am na lu mbégte di la ñaanal barke ak sutura ñaan yàlla képp ko jëflanteeg yàlla ci teraanga di barke Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu bi nga xam ne mooy sa soppe di soppe mboolem ku li ko Serigne Abdou waxee rek tabaarakallah mënuñ ceeg dara waaye la ko euh, Mor Sam Sam Jaxate waxoon na ko innal xilaafata baada mawti abika qad nuqalat ilayka li xikmati hiya akbaru na ko xilaaf gi ñu ñëpp dañu wër dafa dow ñu ci yow dala war ma ba mu kenn du ma war ndax kenn àttulu ma kon Serigne Babacar yàllaa ko tànnal boppam jox ko Mawlaay Cheikh Seydi La Hadji Malick mu mel ni mu mel li may faral di wax ne Serigne Babacar mënut a ñàkk mel ni mu mel li tax ñu ne ñaar ñu ko seq moo tax a jumbu ndax sayyiduna Muhammad yàlla dafa ko tànnal baay Abdoulaye di bàyyam ndax lam tazal fii damaayil kawni tuxtaaru lakkal ummahatu wal abaau yow rasulillahi bàyyi yu baax maam yu baax nga jógee ci bàyyi góor dem ci yaay góor ba nga ñëw yow sayyiduna Muhammad nekk ku baax Cheikh Sidi El Hadj Malick noonu la yàlla tànnale Sëriñ Babacar bàyyi muy Cheikh Sidi El Hadj Malick candaar mu baax lool yiw lool maam Roqiya Njaay gis ko bëggal ko boppam boo jàngee taarixu Cheikh bi ko maam Roqi Njaay gisee ci kër ndeyu daaraam lam Sayyidatuna Xadija defoon ak yonent bi tox ko mbir ma sotti noonu la maam Roqi def ba mbir ma sotti Yàlla dogal ñu may ko Seex Seydi El Hadji Malick mbokk yëpp naan ko Roqi Njaay kuñ may kuñ takk il faut nga am njëkkee am sa première njëkkee fekk maam Roqi Njaay ko koy wax rek muy muñ ndax moom doomu buur la woon bés jot mu fekk Mawlaay Seex si El Hadji Malick toog ci tànn ci fi muy toog di jàngale ñëpp wóoru ko mu ne xaja Malick dama la soxla Seexul Xaja Malick ne ko ndax ma ñëw wala ma bàyyi ba pare mu ne ko fii laa la koy waxee sama mbokk yépp depuis bi ma takkee ba léegi ñu ngi laajte ana sama première njëkkee te bëgg naa xam sama njëkkee def ak moom caraanga Maodo na sëgg ba ci kanam gi xool ca kaw asamaan na ko jox naa yàlla mooy sa première njëkkee maam Roqee Njaay na ko njëkkee de dañ koy jox suru njëkkee te am naa benn pàkk bu ma doonoon ci sama baay danaa ko jox yàlla muy siru njëkkeeyam muy zawiya bi nekk ndar pàkk maam Roqee Njaay la kon nag maam Roqee Njaay ti ñàkk mu jur ku mel ni Sëriñ Babacar ndax annabi la tudd maam Roqee Njaay ak Zahira kon yàlla ñu yàlla defal jàmm defal ñu sutura defal ñu barke ci barke yonent bi alayhi salaam di nuyu Xaji Sam Seck suñu soppi suñu xarit di ko ziar di ko ñaan yàlla télé bii nga xam ne mooy Salam Vision ak tey fi teew yëpp yàlla yàlla barkeel ko comme nu mu barkelee tàndarma ja ci barke yonent bi alayhi salaam xaaju bu suñu soppi la xarit ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal bu baax tawfiq ak taysir ak suñu abdul mëne suñu euh, suñu lu aan ñu ngi lay ziar bu baax kii rakkam ca kaw nag la ñu xamante loolu ba ci démb ma maa ngi lay laaj ci abdullah mu nekk ku baax yàlla na yàlla defal jàmm ci barke yonent bi alayhi salaam yi am jàmm ajakiya ci barke rasulillah ñu fitee ñëpp am jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu barakallahu yow sos yàlla yàlla fay la Euh, kon du jomb mukk bu fi Chérif Mati Aïdara teewoon Joko mm-hmm. Kàndu mm-hmm. nayibam teewoon na fi di Oustaz Seck kon day jaadu ñu jox ko kàddu tabaarakallah ndax Makiya amoon nañu yéene bu yàgg ñëw ziar Chérif kon du jaas mukk ñu jox la kàddu Chérif boo daanelee jox Oustaz tam bu jàng tuuti euh, Oustaz am bu jàng tuuti Alxuraan sëriñ bi ñaan yeewee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 rawatina macha allah taala suñu soppe bi toog suñu wet di Abdoul Aziz Sy Dougaré wax dëgg yàlla ku ñëw Tiwaawan fekk fa xadara ba macha allah da ngay kontaan da ngay bëgg ci ni muy taxawoo xale dëgg yàlla jamono ji mu toog nii perte na temps bu bare ndax fi mu toog booy demee fi baa ngi tëf tëfi ndax lañ koy tudd ci Tiwaawan bare ñoom amuñu jot ku may macha allah benn minute rek macha allah ay milliards la ci ñoom kon macha allah taala. xam na duñu guddal dañuy gàttal rek bu ko defee mu ñëw dellu balaa ñuy dul tisbaar macha allah mu teg àgg ca xadara ja waaye comme ni nga koy waxee sunu toogaay fii lay nekk toogaayu Chérif Macky Haydara xafidahu llahu wa nasara wax dëgg yàlla xam naa mu nekk loolu soppe macha allah soxna Kiya Mbuub bu sëñ Babacar ndax Chérif nit ku baax rek la bëgg day xenc nit ñu baax ñi te it allah yéen ñaar di ngeen jëlloo soriyanto li naan macha allah montre yu baax yi ñoo bokk heure waaye sëñ Babacar Mbuub bu nu gërëmee te gërëmoon ko macha allah duñu lu soxor wala ki ñaan moom mi nu forte yi ci mbedd mi ba indi ñuy ca biir macha allah soxna Kiya Mbuub mi bu sëñ Babacar ñu ustaas dama bëgg nga fasante ko mu kóllëre waaye nga xamante moom macha allah taala loo soxla ci ñaan boo demee macha allah taala mu defal la ko nan fi si waat mu defal la ñaan macha allah daara ji yàlla def barke. xale yi am fatxu. amiin jàng macha allah mu toog dënn. waaye ni ngeen barkeelu suñu Babacar li moo ngi toll. moo ne wax toujours instant naan il est le marabout de tous les dangers. suñu Babacar si jëm. micro bi macha allah taala ay kiraamam. buñ la ci wax benn rek da ngay dar sa kii moom. maa ngi koy wax sànq te kaamil ba naan en 1927. ba bàyyam ba dëddoo magu Tiwaawan yi macha allah toog ni ñoom ñoo koy doon moom ci wilaaya ga ca mat ga moom la tekk moom xam na ni moom macha allah kenn du nekk xalifa sëñ sëñ Hadji Malick mu moom mu leen bu ñëpp soxla naa ci penc bi Abdoul xam na li may wax ba nu sëlmalee fajar mag ñëpp ni ko macha allah convoqué woon ñu ngi nii taxaw mu ne ana sër bi alaaji maa ngi daan toog mu ni mi ngi ñu indil bi ana kaala ga mu ni ngi nii mu leen ma kaala gi ana yar gi ñu jox ko ko mu ni ana abu muhammadul mansuur mu ni maa ngi mun ko ëpp nga ci ana abdul aziz dabba mu ni ko maa ngi mun ko ëpp nga ci mu ni ana abib caatu alaaji maalik mu ni ko maa ngi mun ko kaay toog sëñ Habib ñëw toog moo tax sëñ Habib dañ ko dëj ci xilaaf bi amaa nga ci toog ndax xalifa kenn mënu ci toog ñaareel sëñ Abdou ca sées boobu mhm. dañ ko ca dëj macha allah mu toog ci xilaafa yi kon ci ñu toogaat mhm. loolu tax mu jiitu ay magam te jëkk naa wax mag ñi mhm. toog leen bi bi indee ñi bëggoon doon Maodo toog leen ku ci mu ñemee toog ci chaise bi na jël yat weeg kaala di toog ah. ñoom ñëpp ñuy xoolante mu ni maam Habib kaay toog mu toog kaala wu teg tengaade bi téye yan mu ni yéen ñi ci des ku ci toogoon balaa jant soñ wallahi alazim wallahi gis nga fa am ni ko waxee kon loolu waxu dëgg tingoom na seen. wallaahi la waaw kon dafa bokk ci kiraamaa bi. wallaahi beneen bi nettali naa ko fa. nee naa ne yónnee na sëñ Maniru Sarr Ndar. ca jaaroom bëreeroon. ba fa fàtte woon. bu fàtte fa jaaroo ba. Eh, wax sëñ Maniru Sarr eh, dama Ndar. Eh. jëlale ma sama jaar bu ma fàtte woon. Mm-hmm. sëñ Maniru Sarr dem Ndar waaye bu dee bay wàcc commandant bi rek. fekk fa benn waay bu ñuy wax dofu sëñ Babacar. Mhm. mu ne gaa yow de dégg naa yow dofu sëñ Babacar. Mhm. man de am naa loo xam sëñ Babacar mu way bul waxtu loolu waay. Mhm. mu génne jaare nag génne jaare sëñ moom mu jël si loolu. dof bi bëgg xëcc si moom ñu koy xëccoo ñoo ñaar mu dugg ca ndox ma. sëñ Manioune Sarr am ñetti fan ndar jaaxle. naan nan laay def macha allah ba di wax sëñ bi jaar na fa dugg ci ndox mi. waaye mu ne ah naa dem wax rek. wallaahi ma dee dóor dóor ma su ma dee xas-xas ma naa dem wax li xew rek waaye sëñ Maniour Sarr bi ma ñëwee Tivaouane mm-hmm. fekk salo fees del la nit mm-hmm. sëñ Babacar di ñaanal doomu aadama yi ak di leen yeewi mm-hmm. waaye ma toog tuuti gis que macha allah sëñ Babacar ma ngay foote jaaraw <laughs> di mun deel jaaro ji man sama fit ba dem na maa ngi naan jaaro bii moom la wala du moom sëñ Babacar ni que Maniour Sarr bàyyi li ngay xalaat ku sa taaliba dur rek yow ma sa jaar nu mu lay réere kon macha allah ma zaki ba adin aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa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 الصالحة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفضل من شر ما خلق ومن شر غوثك إذا وقف ومن شر نفسات ومن شر غاسل إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس آمين الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما آمين وهو نور الدين ورحمة اللهم فقرني مما نفقت وعلمني مما شئت وارزقني تلاوة القرآن الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة الأمر واحد الدنيا التي فيها معايشة الوصل التي فيها معيدة واجعل الحياة الدنيا في كل خير واجعل الفرد رحمة من كل شيء اللهم اجعل خير أمة أخيرنا وخير أخيرنا وخير يا أيها اللهم إني أسألك آمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم إني أسألك خير المسلمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين وصدق وصدق آمين يا رب العالمين آمين صلاة الله عليه آمين آمين أسألك الغنى الجنة آمين وأسألك المجيب آمين يا رب العالمين وسلامة من كل اسم آمين آمين والفضل الجنة وما جئت من النار آمين وحسن عبدك Amin. اللهم اقسم لنا من خشيتك آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين وأبصر النار آمين يا رب العالمين اللهم آمين ولا تجعل مصيبتنا في الدين ولا تجعل مصيبتنا في الدين ولا تجعل مصيبتنا ولا تجعل الدنيا أكبر آمين ظلما آمين آمين آمين آمين ولا هم إلى فرش آمين ولا هم إلى فرش آمين ولا هم إلى فرش آمين ولا هم إلى فرش آمين ورحمة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قدركم يا رب العالمين يا رب العالمين آمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قبولها يا أرحم الراحمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلى قبولها يا أرحم الراحمين ربنا اجعلنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في ذلك شديد آمين فها نحن في البر ولا النار والسلام عليكم آمين سنخبرنا من كنت في عونك وإنكم في البرية إلهي فاجعلنا من أنت ومن اتباع سنتك آمين أعوذ بالله من شر آمين ومن طلب رضا لم قال أنت وفقد بيدي لا جعل اجعل حلنا بين الكافرين لا جعل الحي بين الكافرين اجعل حلنا بين الكافرين لا جعل الحي بين الكافرين اجعل حلنا بين الكافرين اللهم انت امرتنا بدعائك وامرتنا باشارتك وقد دعونا كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا فاجبنا كما وعدتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والاكرام انك لا تخلف الميعاد لست تخلف الميعاد لست بحرمتك amiin dugal leen seen i aajo barki Serigne Babacar وصدق وسلم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره امين وسلام على اولادنا وسلام على اشياخنا وسلام على سيدنا وسلام على كبيرنا وسلام على جدنا وسلام على زوجنا وسلام على المرسلين فاتحه الصلاه الفاتحه حديث الدوله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 دائما بإجابة أن تقينا ما أهمنا وأن تنفعنا صالحا بها ما نقام وأن تؤتينا جميع ما نهم الخيرات وتختمنا أبواب الأموال يا خير الراسخين يا رب العالمين بحق لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا اغفر لنا وارزقنا إجابة وزدنا يا ربنا إيمانا يقينا كما كل الأمر وصحة البلد رب لا تسل إيماننا بدعائك رب لا تسل إيماننا بدعائك رب لا تسل إيماننا بدعائك الحمد لله مجيب الدعوات الحمد لله منزل البركات الله يا مجيب الدعوات منزل البركات أن تجيب دعواتنا كلها وتنزل علينا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 li fi xew la Serigne Babacar Sy daan wax ni ndamal caraane di ko joñal de ba mu toj moo gën a xëccoo bu toj kenn ku ne rek yëg sa bopp ci mbir mi dana yàlla fay barkeelu rek maam Maodo way na yoneen bi bàyyi Serigne Babacar magi moom Abdoul Aziz Sy Dabakh ma ñuy jooy te noppeeguñu sofeetu aram bongo nguy njaay faama waaw nguy njaay faama maam da baax dem na maam da baaxoo oh, oh, oh, kii wa baax mag kii gën mag sëñ Babacar mooy magam noobul ba dem na sëñ Babacar bisub juddoom soo ko feete am nga sansey bisub juddoom soxna ki ay dërëm buub ak bëgg sëñ Babacar Bakar rek dërëm man aram loo kumba caam bañ pendaak pate ma pendaak bugguma pendaak xar yàlla bopp coor góor gi ci parasol bi mhm. benn waay daf ne ma dama dem ci merse mu xool ma ne ma doo wér mhm. mu daal di jël photo sëñ Babacar jàkkaarloo moom naan ko sëñ Babacar du ma wér. ba ma defee consultation ñu ne ma jàngoro jooja dem na kenn du sëriñ Babacar. fajuroo jëggoon na gaaw na fa maam booy laaj ko kembay fii ci biir ci waawan li ma gën a yem ci maam Khalifa. Hmm. soo xoolee. fotoom boo ko xoolee sëriñ Abdou li ma gën a yéem ci góor gi xoolee danga naan ma buuy man lay xool keneen su ko xoolee danaan sëriñ Babacar man lay xool ndax cofeel gu ma am ci njabootam ëllëg gi ma am ci Cheikhuna Tijaani ku ci gën a bëgg sëriñ Babacar Lambo yeey ki ndar ndar la ah, sama maam aa ah, ma benna bugguma benna xar yàlla boppu coor bés bu dégg nit ku naan la fooy jëlee ci sëñ dootu am ci duniyaa ajatu gaa sa sëriñ koo nga dem na bitu yaa koy jooy asamaan saa koy jooy tijaan yaa koy jooy murit yaa ngi koy jooy sëñ Babacar ñibbi naa ah! ñu bëgg Serigne Babacar Serigne Babacar quand il marche il fait doucement maam xalifa ndax Serigne Babacar bu musaana teg ba ne kaare ba ca bopp ma mhm. xanaa maay téléphone yére nan ko yow bi bul diis ci kawam Serigne mooy ki la sol yére ba dellu téléphone mbaraaj gis ya nan ko yow dàll yi bul ko pëndal bul ko puchéeral waat naa ni te bul dëgg sama bàyyi Serigne Abdoul Aziz Al Amin mooy ki sol Serigne Babacar man naa la may ndama yaayu ku la dañuy Serigne Babacar. Mhm. Serigne Abdou. Alaaji Abdou Alaaji Mansour danoo dem marché Tiwaawan jënd mbaxana bu tudd Boniface ba mu ñëwee. ko Serigne Babacar ni ko Serigne Babacar dañoo bëgg nga changé sa bone carré bi ndax yàgg nga ak moom Serigne Babacar summi bone carré ba natt bone fas ba mu jàpp ko lool Serigne Babacar jékki-jékki daan ni man Babacar si dama wëllërante bone carré te man Babacar du ma fecc wëllëre du ma tas ak mbokk tey du ma wax amul kii ne moo rëy ay may aduna biit na waa na Ah, Serigne Babacar kaay nga gindi ma bëgg ko la bismillahi rahmaani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billah bismillahi bokk internet yi nga xamante ni yéenay suivre télévidéo bi nga xamante ni mooy Bour Gueweul TV waaye feggoo ak tam tey ñi nga xamante ni ñooy waa Dakar People dëkk la ñu am tey ci bés bi nga xamante ni soxna Kya Aidara Mboup ñu ngi ko woote taxawal ko jëmm ju tedd jooju nga xamante ni mooy Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu suñu maam ju baax joojee nga xamante ni euh, bés bi euh, bu dikkee àdduna wërngal këpp kenn ku ci ne fu waaye mën a nekk sa xel dem ci bisu Serigne Babacar Sy bi mm-hmm. ba tax na moom soxna ki yaa ay dara mbokk xamoon ci moom at mu jot ci bis bi ñu ci daan def lu rëy daan ci wàccee kaamil daan ci jàng alxuraan waaye daan ci toggi ay benn defi jàng waaye situation mbas bi tax ren moo ko rek ni nga ko boobu léegi ci image yi ñu wàccee ci kaamil bi jàng ci alxuraan waxtaane jëmm ju baax joojee nga xamante ni moo war a daje bi tey ni ñuy def nag mooy dañu koy nuyu laaj ko moom ñaari baat ci bés bi tey di ko sabab naka la ko dundee ak ban yëg-yëg la ci am ak situation jamono bi fi mu toll ci réew mi macha allah kon soxna Kya ñu ngi lay nuyu waaye la dalal macha allah. bisimilah maa ngi ne sama sëriñ sëriñ Babacar Si radiyallaahu anhu comme yàlla subhaana wa taala def na tey ma gis ko maa ngi sant yàlla subhaana wa taala bu wér ñu ñaan ko tamit wàcc kaamil yëpp yàlla def yërmande wàcc ko ñu julli ci yëpp di leen ashhadu laa ilaaha illallaah ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam ñu génne àddina yéene yëpp mu dem foofu moo tax ñu ko jox teg si jox yàlla subhana taala yàlla jël ko teg ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ko seen Babacar Sy ak waa këram séddal ko kilifa diine kilifa aada yëpp dem si suñu doom eh, yóbbu ko si ñoom tamit kontaan na année suñ ko def waa ci Kamel après ñu def bi moo tax parce que coronavirus bi ñu ngi si dëkk bi su ma ko def wàccu kaamil bi def nañ ko après ñu lekk foo kaf waxtaan seen Babacar suñu waxtaan kii fa diine après ku nekk jóg ñu dem mais suñu bu def takkusaan seen Babacar si mbooloo bi day bare feebar yi ñu ngi si dëkk bi moo tax def nañ ko ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla def feebar lépp ñu day mu mel ni wax nga ko am na solo loolu si la boo xam ne da nga ko daan def at mu jot daan ci def yéene ci mm-hmm. euh, euh, maanaam delloo ci njukkal sa sàng ba Serigne mm-hmm. Babacar Sy waaye tamit ñaanal ci yàlla ren bi néew yi nga xamante ne suñu borom dogal na xew-xew yi am ci réew mi yëpp kenn ku ñu bawoo ci mm-hmm. mu doon loo xamante ni euh, nit pire mooy xalaat loolu jullit pire mooy xalaat loolu asgoor mooy xalaat loolu ma bëgg yow nga xamante ji ba ma doon laaj lan la lan nga ma mën a nettali foo xam ne sa diggante yow ak sëñ Babacar Sy foo xam ne jaar ngeen fa yéen loo ñu mën a nettali nettali ko waaw daal la bari na de. benn rek benn rek su ma télé bi du ñu jóge fii. Mhm. bari na bari na bari na. waaw daal la même si man bëgg dem si bu euh, fii ci sëñ Babacar si ku dem si ñaan si sax. Mm. mboolee bi bare lool. Mm. su ma ko yéene sama biir kër gi. Mm. ma tàggu si photo ma ne su ma demee. ma dugg facilement bu ma sonn dina daal di dalee ni foofu mu ne su soxna fi mu xëcc ma si mbool bi dugg ma foofu. ndax loolu yëpp suñu Babacar Si la. su ma am soxlaa ma diisal ko. su ma man ni ma nekkoon liggéey fétiche. boo tey ma bàyyi ko nekk ci liggéey xob bi ngir moom seen Babacar Si la. sinon fétiche laa liggéey ak leneen ak leneen. bare na bare na bare na bare na bare na mënuñu ko wax nii. suñu ko waxee nit yi dinañ wax wane la. bu mm. fekkee du wane bugg bugg ak coofeel la. Mm. bugg def lu métti. macha allah mu mel xanaa fi maa ngi rek jox sama sama sama daataako sama jëriñ ji moom it mu daal di am ñaar ba ñett la laaj <laughs> su ko defee rek mooy. lan nga taamu ba tax nga woo waa Tiwaawan ñu déplacé wu Tiwaawan ñëw ba Dakar pour wàcce si kaar yëg-yëg boobu lan lan moo ko sabab dëgg ah, ba xam malien jël euh, tànk bi téye doxo bi hmm. xam nga dina ko wala bi hmm. dem la nit boo ko bëggee doo ko jàppantu non voilà hmm. voilà su ma wàcc kàmb bi nga wàcc parce que li mu métti métti si Babacar Sy foofu la mu nekkee. ñoom mhm. foofu la mu denc. ñoom waa Tivaouane ñu ngi wane seen yéene yi. waaw mhm. yow tam fan ak yow ay mhm. dara mu bugg seen Babacar Sy mhm. du foo du caaxaan si xol bi lam ko ci doon mhm. moo tax tam saa yi wàcc xaar dinaa dinaa wa ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak nit yi mag ñeneen ak ñeneen waaw maa ngi sant yàlla alhamdulilah ñoom ñëpp ñooy ne wuyu si ma loolu mooy sant yàlla la am na ñeneen su nga leen moom duñ la fàll duñ la wuyu si sax parce que soo nag yaa juddu fi yaru fi magu fi su nga gis mu bugg seen Babacar am na seen ba Sy ni mu ko wanee am na cofeel mu ngi nekk seen Babacar am na seen Babacar mu ko defar susuf ak ci kaw. wallaahi bi lay kenn seen Babacar. jour bi ma ñëw fii Sénégal photo bu ndaw bi laay fataala mm-hmm. tey ba photo yi photo yi photo yi photo yi photo yi photo yi photo yi photo yi tribune mm-hmm. photo bu ndaw mooy sama première photo bi mm-hmm. nekk nii ci kaw ma jëndee pour seen Babacar mais tey yàlla def na ba photo yi tribune tribune tribune ba def ko photo yi màgg waaw nga xam ne loolu tey du si caaxaan macha allah waaw kenn du seen Babacar su ko defee defe naa foofu la ñuy wàcce suñu kàddu waaye nuyu suñu papa bu baax a baax moom it ñaan la ko sama gën leen guddal boobu sama xarit boobu itam maa koy nuyu di ko ziar naan kan tam mbubb mi jot naa ci moom laa sañ si nii tuwaat kàlla yal na yàlla defal gën a dëgëral taxawaayam ni ñu def dañuy jox sa dex bi moom it mu laaj la ñaari baat mu jëm tam ci bisu tey bi incha allahu rabi taala bismillah jërëjëf euh, Sam kontaan nañu bu baax ñu ngi nuyu mbokku internet yu BGTV ak euh, Dakar People ñu ngi leen ko waxee yéen a ngi soxna kër soxna Kya Aidara mm-hmm. muy def ñaanu Serigne Babacar Sy le 26 mars. le 25 attends pour moi le 25 saa yu dikkee rek euh, xel yëpp dañuy dem ci Serigne Babacar Sy tey mu yem ak jeudi koy rendre hommage di ko ñaanal. li ma lay laaj rek damay gis saa yu ñu ñëwee saa yu def ñaanu Serigne Babacar Sy li ñu ciy daj. Mm-hmm. li nga ciy fere mm-hmm. te bu jàllee. boo gisee soxna Kya day yokk. wallaay loolu waaw loolu nan nan la lay liggéey. sa diggante ak ak ak seen euh, wax naa ko léegi ma ne su ma nekk wax benn wax rek. Mhm. nit yi day wax soxna Kya mi ngi wane boppam. Mhm. Euh, ma defar. maa ko xam ak yàlla subhanahu wa taala. Mhm. su nga xoolee jamono yi Papa Talla xam ne li ma amoon fétiche. nga xool tey jamono bopp du benn. seen Babacar li mu defar soxna Kya suuf suuf ak ci ma ne. jamono yi man soxna Kya ay garam bu génnee. ci télé si rajo yi. si site internet bi dóoru sama déet man may taal bi sëñ Babacar sa kanam. Hmm. benn benn taal bi sëñ ba su may génnee mooy man sama kii ay dara bu muy bare bare ba di law. Hmm. si internet bi. Hmm. waaw ma ngi sant yàlla di julli parfaitement sëñ Babacar si defar ma lu bare defar na ma lu bare. defar na ma lu bare. waaw man ngeen nee ne nit su la defar lu bare. am na leneen nga génne ko am na leneen sutura la. yooyu yëpp lañ ko waxee mais xam na defar na ma lu defal na ma borom or defal na ma borom oto defal na ma borom kër defal na ma lu nekk ni ma ko ñaan si Malick may na ma ko saa yi ma demee fu fu mu tëddee su ma ko ñaanal bala ma dëpp dina ko am kenn bi seen Babacar Si kilifa diine kilifa adda ku nekk dana Soxna Kya Aidara bi fan la mu jógee moom seen Babacar Si la su ma waxoon Soxna Kya Aidara bu bëri baax na mais taalibe seen Babacar Si moo tax adduna yëpp bëgg ma ndax am ni gën a neex adduna papa nga doon taalibe seen Babacar Si bul fen bul tuuma bul jaxasee hmm. ni nga ñaan seen Babacar Sy bal bi takk hmm. wala bi lañ takk sa digganteeg moom da ngaa ñëw Sénégal mais hmm. wala avant la bi ngay nekk. non non non ni ma ñëwoon Sénégal. ah waaw waaw loolu la li feeñu wala da koo gis ci gént. wala ndax ni mu ni mu demee ci yow moo doy mm-hmm. waaw. Mm, photo bu ndaw bi ma la woon léegi. waaw. damaa ko junne woon 1000 francs. damaa mm. ko junne mais nekkul dafa dafa ko cadre damaa ko def cadre parce que yàgg naa sama. waaw maa ngi am léegi 9 ans. Mm-hmm. fii Sénégal. ni mm-hmm. ma ko jëndee jënd naa mm-hmm. ma denc ko sama biir kër. ni ma ko dencoon sama biir kër fi ma liggéey sama liggéey fétiche bi. foofu laa jëlee photo bi taf ko noonu mais nekkul si ci biir vitre bi ni ma ko tafoon foofu man de dem ñaan di ñëw di ñaan di ñëw àll bi ba benn jour photo bi bët bi di def nii. loolu du gënte de. photo bi maanaam. wallaahi billaahi mhm. tallaahi benn photo bi. moo def nii. di dem ak a ñëw. wallaahi man fi mu daal kasi. su man ma xam bëggu na ma déggantaan ou mhm. bien damaa am bëggu benn affaire namm naa ou war a dem fenn mhm. su ma ko ñaan teg sama loxo su def na ma benn geste ma xam boobu baax na. ou bien su ma yëpp du ma ko mën a wax. photo bii. waaw paa bi mi ngi fii mu sant ay dara. mu ne yow lan la nga liggéey ma ne fétiche laa liggéey. Hmm. paa boobu kilifa la àdduna yëpp xam na ko. Hmm. ne léegi lan la nga def di si néeg bi ou ma nekkee ma na ko teg ci kaw. Hmm. ma jël fétiche bi daal di leen yéeg dama wuti ko ci biram tëj ko. yóbbu ko ci kaw. parce ma bay kër fétiche. ma dem ko faral kër jàmbur. léegi am na solution fétiche valise laa ko def yéeg ko ci kaw ma ñëw. xol fóotil ma ragal ma jàpp julli di yeesaale fekk na dinaa julli dinaa wor mais wax dëgg yàlla ma ngi bokk yàlla. bokkaale baaxul. parce que yàlla subhanahu wa ne ñu koy bokk man ni ma wax rek ma ne sëñ Babacar si moo bu sonal na ma ne beneen affaire yàlla mu yéex ma génn àdduna fekk na maa ngi ñaan fétiche ma dem safara comprendre comme sëñ Babacar si bugg na ma génn na ma si ñaan fétiche ma ngi sant yàlla. li wér-wér. kon li nga bëgg a wax daal mooy seen Babacar Si moo la génne ci lëndëm. wallaahi wallaahi chaque jour maa ko wax di dóor sama dënnu. Hmm. chaque jour El Amin tamit. waaw El Amin. Hmm. doom seen Babacar Si. Hmm. ni ma jóge fii fekk na ñëwuma pour toog Dakar. dama ne sama papa sama benn rakk. ma ne yóbbu leen ma Tiwaawan ma dem ziyaar li ma dem Tiwaawan tout à na dem Tiwaawan ma dem ziyaar li ma ziyaar El Amin. ma wax ma ne mu def Dubaay pour toog foofu. mu ne ah, pour lan ma ne ah sama séjour gën na yëpp gën na ma jox sama passeport pour mu ñaanal ma ma dem Dubaï pour toog foofu ñi ma ko wax loolu mu ne toogal fii. wallaahi billaahi tam fii. mais ñi ma dem Dubaï. gisuma benn bànneex coono. problème coono. problème bu ma dag sama partam kii demoon am séjour. am ba ñëpp mënatu toog foofu. ma ngi dëpp dëpp wax ñibbisi. ñi ma ñibbi si ma dem Mali après ma ñëwaat Sénégal ma dem si moom. Mhm. ma ne papa li ma ñëwoon fi jox ma sama passeport nga ñaanal dama bëgg dem. Mhm. Eh, Dubaï danga ma may wax ma yi mu ne du yëpp lañ li ma la wax nga toogal fii su ma yëpp dina la fekk fii. sëñ Abdoul Aziz Sy Al Amine. wallaahi wallaahi wallaahi mhm. su ma ko fenal suba yàlla dina ma ko laajal. leneen ak leneen ñun kon euh, mbokku internautes yi gis ngeen ko tey ah euh, soxna Kya ngeen amoon ay dara. Serigne Babacar Sy. xam naa li duuf ci nag yëpp du xaj ci cin li. dañ lay bàyyi rek nga tàggoo ak mbokk yi. ñaanal réew mi surtout ku réew mi tool ñu tàggatoo ba leneen. maa ñaan yeneen bi ñaan seen Babacar si ñaan kilifa diine ñaan kilifa aday réew bi yàlla def ko jàmm kambi alquran bi wàccoon tey mm. réew yàlla def ko jàmm fitna bi nekk si réew yàlla dindi ko ñi feebar yàlla dindi seen feebar ñi nekk si sikra pour dee mm. yàlla yombaleen ko mm. ñi jaaxal yàlla dindi si njaaxal falaatoo ak yetti meew ñuy nekk tolof tolof yàlla dindil ñu ko ñuy nekk si prison yàlla génneen ko ñuy nekk si diggante kër yàlla yomb leen ko ñu amul jëkkër yàlla may leen jëkkër ñu amul doom yàlla may leen tam Euh, liggéey yàlla yombal ko loolu laa mën a ñaan tey si àdduna bi xam na tamit waa Tiwaawan ñu jóge ñëw fii ñaan si ak ñeneen ak ñeneen ñaan bi xam na du yaan ñaan caaxaan yàlla dina ko jëf tamit ñu sant yàlla jël ko maam sant yéen tamit borom si ci kenn du yéen tamit parce que ngeen jël seen temps di taal nit micro di wax maa ngi leen sant bu baax a baax sant yéen yëpp mm. sant Moussa sant Eh, waagaan waagaan mhm. sant Papa Salla sant yow tamit sant yéen ñëpp sant ku ñëw seet si ma fi mhm. sant Abou Diouguré mhm. sant Babacar Mboup sant site internet yëpp di leen wax jërëjëf sukran maa ngi leen jëf mbokku internet yi tey lii la leen jël sil fii ci kër Soxna Kya Aidara mu ngi def ñaanu Serigne Babacar Sy muy ñaan nag li nu fi ñaan lépp yàlla na ko yonent bi jël def ko ay yiw sopp ko ci réew mi ndax réew mi laaj na loolu soxla nanu ko fii ñu toll ñu ngi ñaan ci barki sëñ Babacar si balaa at mee del si yàlla na lépp nekk ci jàmm delluwaat fa mu nekkoon nit ñi delluwaat seen i activité ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waa Dakar People waa BGTV Sam ñu ngi lay remercier waa Salam Vision ah maa ngi nuyu sama rak sama xarit ah. dégg daaj moom ñëw na ci mi ngi ci mi ngi ci bis bi maa ngi nuyu dëgg daaj tamit di nga wax dëgg la de waaw waaw ah. ak Oustaz Ahmed Ndiaye maa ngi nuyu Oustaz Ahmed Ndiaye ah. nuyu dëgg dëgg daaj tam surtout mm-hmm. dafa nekkoon ci eh, am na gaañoo bi amoon kaw la. waaw ma ko mu ne dinaa ñëw. wallahi billahi tallahi dama fa ne du ñëw sax. léegi laa ko gis na ma kontaan. maa ngi maa ngi ñuy dëgg daal bu baax a baax. maa ngi ko nuyu moom tamit. jërëjëf suñu rakk la ñu ngi koy ziar baax kon mbokku BG TV boo liggéey ñu xoolal leen leneen rek. ndax bu nekk li ñu ko waxee. li ngeen bëgg rek moom la ñuy jug leen ko xoolee mm. jërë ngeen